Oasis Travel Sénégal, Oasis Travel est un cabinet d'assistance visa qui vous accompagne dans la réalisation de vos différents projets de voyage, à savoir études, tourisme, affaires et stages, raison médicale. Alors si vous êtes étudiant, entrepreneur, commerçant, professionnel, ouvrier ou sportif et vous désirez d'aller au Canada, France, Belgique, États-Unis, Italie, Allemagne, Espagne, alors c'est le moment de venir voir Oasis situé en face de l'université immeuble Fofana 5e étage. Grâce à notre expertise, nous faisons en sorte que votre dossier de voyage réponde aux critères de l'ambassade du pays de destination que vous dans le domaine de vente et de réservation de billets d'avion, assurance automobile, réservation d'hôtel. Alors pour plus d'informations, appelez au 77 à 434 83 83 ou 77 265 29

Eh, munu da nga koy wéyal comme yooyu yooyu yi ngay wéyal jaara noonu ay ay yan sa way rek ne ko bu ñuy way ne ko bu ñuy way kenn duñu dégg mu la maa dee daal naa xale bi papaam la niroo. a xale bi la niroo. mais papaam la gën a niroo. la gën a niroo. ajaratu mboose mu sell nii. yow rek la dégg nga. ajaratu mi. ajaratu Mor. Daaro da ngaa bëgg sa xew yegg ci jàmm am na yoo xam ne war nañu yabal seen sonn ay saytaane nañu ñu doy waar nañu. mais man xamatuma la looloo ma jaaxal man dama laa xamatul fenn. kaa ci jël ma ma jëli ci man ma jëli ma jëli léegi. sant yàlla sama yaay ji dafa baax loolu ñëpp xam nañ ko moom day di seex la moom jaaxal naa la tëdd dafa bëgg ñëpp moo tax ñëpp a ko bëgg tey mu ngi nii nekk fii ak ñoom Daaro def leen comme ni mu ma def. ku mu nekk noonu la lay def sant yàlla alhamdulilah yàlla ko yàlla bàyyi suñu mu mu gum nañu ba ci kanam. la nekk sa xarit. waaw maa ngi naan ko demal nga toog ci biti. mu nga toog si biir mu ne ma tooguma ci biir kaay. taxaw ma ci biir dama taxaw assisté la ba mu tourné bi ma bi ma la gisee maa kontaan xam nga dama koo bëgg mu bëgg ma billaay su ma ko gisee sama bi sama xol day sedd waaw parce que moom dañu yàgg nag depuis depuis gunaas bu njëkk ba ba pare dañ doon faral di waxtaan lu bëri ñu ciy waxtaan man ak moom bi ñuy génnandoo ma ak moom bokk na ci ñaari artistes yi njëkk a génn ñu ci man bi ma génnee yàggul dara moom mu génn bokk nañ ci artistes yi nga xam ne ñoo njëkk ñëpp di waxtaanee macha allah mu ñëw waaw mu ñëw nag bu ne dañu wootante à travers benn groupe bu ñu bokkoon al solidarité ñi ci woowante loolu laa bi moom la ñuy wootante suñu doom yi rawantee trois mois comme comme bébé lay laa rasul ak Mame Diarra ñoom tamit ay jumelles lañu macha allah mais kontaan naa ci ñëw bi mu ñëw buñ koy gis mu génn lu bari waaw tey mu ñëwal la nii damay kontaan pourtant noonu laa mel bu li may dem xew bariwul mais moom fu xewlee damay dem barke Serigne Touba tey sama yaay rek daf ko wax bi may sëy dafa toog sama kër ba fajar yóbbu ma ba sama biir néeg toog ama nga loolu ba fajar ba ñëpp dem kon loolu man su ma ñëwul ci xewam du ma ko mu nekk nit ku baax daara nit ku baax la nit koo xamante ne li muy joué sax melul noonu boo toogee ak moom ndax boo toogee moom sax day waxam day wàññeeku dafay nit la ko am sutura nit la ko am teranga donc nag dañ koy ñaanal bébé Layla yàlla na màgg ba dimbali képp ku ci xaj ci barke Nabil Moustapha yàlla bàyyi ko jëkkëram ah, ak bépp bébé ak maam jaare jumelam temps yi buzz bi bari na ci internet wax ci maakente ne Dakar Buzz comme ni leen ko waxee ba tey ñu taxaw nga xamante ni moo di Soumboulou Bathily euh, di soxna si Abdoulaye Diop borom xaas yi ah tabaarkàlla Soumboulou ñu ngi lay nuyu. leen di fay laal euh, gis la tey ci bésu daaru bi lan moo nekk seen diggante. waaw daara sama xarit la lu yàgg dëgg la ñoo bokk dëkk Gunaas ba tey jii nii mu rafet loolu dara ñaawul kon bu xewlee ma ñëw teew si lu yoon la keroog bi may sëy daf ma yóbbu sama biir néeg toog fa ba lépp jeex donc man euh, bu xewlee dama war a teew. Euh, yan conseil nga koy jox digganteem ak borom kër. moom xam na moom xam na man xam naa <laughs> jàpp te ba bàyyi rek. Mhm, sëy moom yombul. d'accord lay jaajëfal di la wax nga bëgg sa fan si sénégalais yi lay bëggee. waaw maa ngi bëggee ñëpp. <laughs> dëgg la waaw Farouz lan la Farouz lan la. waaw dëgg neexul. kuy dë kuy nëbëtu di sol lu xool. la nga waroon. Mose Mose Mose ana sumbulu. sumbulu ngi nii toog da laa faale. lu tax. yow doon nga di koo xam ne kenn xamatu la kenn koy féete ku nekk këpp sa caméra bi te du dem politique yi wala këpp sa caméra bi. xamatu ma xamatu ma. ci nee na yow sa wàllu bopp. Ah. man maa ne ko bu ñu waxee ci benn yoon. Daara ñu wàcc. ci man mi ngi ñaare xamatu ma fenn. day gën a ñaaw day gën a ñaaw.